thank you nemmeeku surtout collaborateurs formation professionnelle ak artisanat euh, may jóge ci région yëpp parce que artisan yi dañuy rafet lu baax li ma fi gis d' ci wàllu ministère bi gis naa ne daw bi xale yi jeunes yi jigéen ñi ñëw nañu en masse xool si lan la ministère bi def lan la te loolu nag su amee jàpp naa ne volonté président la république jox ndaw ñi métier pour ñu am comme ni mu ko rek ndaw ñi amuñu liggéey parce que liggéey amul mais ndaw ñi amuñu liggéey parce que suñu qualification métier comme donc te tey ci gis-gisu président ci vision mu teg ay outils ay instruments ay kuréel yoo xam ne ñuy gunge pour mën a jox ndaw ñi qualification jàppale ci donc loolu jàpp naa ne waral na tey li ma gis ci biir stade bi que xale yi ñëw surtout les jeunes ñëw en masse pour visiter loolu mooy profité ci ak tamit wax nekk pour nga am liggéey bu décent daw bi dafa am métier te li nga xam ne dañ ko yokk leen mooy tey liggéey du rek jàng ba pare am métier dem ci entreprise ñu lay fay par weer tey ci suñu ay réalité pour que ndaw ñi jàngal leen métier mais bu leen di jàngal métier ñu jàngal aussi nan ngay saytoo say nan ngay amee ay capacité entrepreneuriale parce que suñ ci paree ci formation dañ leen di gunge un accompagnement financier loolu jàpp naa ne tay mooy euh, solution bi nga xam ne mën nañu indi ci ma jógee ci loolu dem naa seeti aussi euh, euh, région yëpp parce que sama njaboot nga fa nekk muy artisan yi may am mbégte loolu des régions yëpp ci Sénégal mais particulièrement artisan yi maanaam jigéen ñi nga xam ne ñoo gën ci wàllu artisan seen taxawaay ñu jógee fu nekk ci Sénégal président la République yéenee mooy yëkkati artisanat ba contribution bi muy indi ci suñu produit intérieur bi gën a yokk ñu améliorer seen ay production donc jàpp naa ne euh, loolu ak liggéey bi ñu def at yëpp tax na tey ñu am ay artisans yoo xam ni am na prédisposition am na ñoo xam ne ñu ngi liggéey liggéey bu ci ayib li ci des rek mooy ñu gën a pousse pour que ñu débouché ci ay entreprises yu ndaw yoo xam ne dañ ko formaliser mën a xam nga Sénégal dafa bokk ci benn àdduna boo xam ne léegi dañuy wax ne village la àdduna léegi as dëkk la euh, nit ñi kenn mënatu leen téye dañuy dem di ñëw di jënd di jaay donc loolu kenn mënu ko boo ko bëggee téye da ngay sonn. Sénégal aussi bokk ci Afrique Afrique xam ngeen ne fan yi ñu tuddee euh, jël li ñuy wax Sénégal donc maanaam boo ma ko bëggee teg jolof tey artisan bi nga xam ne ngi liggéey Afrique du na ñëw jaay Sénégal artisan bu liggéeyee Maroc mun na ñëw jaay Sénégal comme artisan bi nekk Sénégal mën a dem jaay Nigéria wala Sénégal alors loolu nag jàpp naa ne suñ ko bëggee suñ ci bëggee am taxawaay li ñuy mooy li wax rek accompagner artisan yi gën leen jox métier seen liggéey gën a dëgër mais aussi ñu accompagner pour ñu def ay produits de qualité international parce que loolu rek mooy xeex su nga xam si waaw jërëjëf projet OFOP One Village One Product euh, projet bu ndaw ci dëkk yi nga xam ne ñu ngi yëngatu maanaam ci Fatick ci Kaolack nekk projet bu ndaw ci xaalis bi te may profité sant suñu JICA waa Japon mais projet bi am ay résultats yu am solo loolu moo tax projet bi jeexee état du Sénégal ñu jàpp ne yooyu am na solo te nañ ko yokk donc ministère bi yëpp ci mën a continuer accompagner euh, projet bi ngi liggéey ak partenaires yi euh, pour projet boobu ñu mën ko yaatal ci Sénégal yëpp parce que jàpp nañu ne dafa am ay